bëggul béral aw ñaawteef lu yàlla bëggut lu ne nag amul solo amul njariñ lu ñaaw daal kenn waru koo def kenn waru koo fësal laa yuhibbullahu aljahra bisuu bisuu min alqawli la wax ndax ñaawteefi wax moo gën a woyof ñaawteefi jëf ginnaaw bëgguñ feesal siiwal ñawte fi wax kon rawatina ju jëf mu ne xanaa kenn kuñ tooñ mel ne nit koo xam ne dañ koo tooñ moom may nañ ko mu feesal aw ñaawte loolu boroom xam fi li ci wax mooy nit koo xam ne dañ laa tooñ ëpp la doole dafa la ludul noona sañ ngaa jàmbat loola ca kaw ki la tooñ nga wax la mu def bu nit nekkee ab sàcc nga ne ko ab sàcc daa sàcc sa alal nga ne ko ab sàcc la wala ab tooñkat la wala kàccoor la wax ko ca kaw jooju ngir tooñ bu mu la tooñ lislaam du la ci tegi daal doonte nag nga bañoon ko def moo gën ndax wax na feneen ne euh, wa jazaau sayiatin sayiatu mithluha waaye fa man a wa aslah fa ajruhu ala allah kon siiwal aw ñaawte dañ koy tere fépp kenn lañ ko may te bañ koo def mu gën kiñ ko may mooy ku ñu tooñ moom mu béral tooñ ga ngir beral tooñ gi ngir euh, wane ne dañ koo tooñ ak ñaan yàlla képp ko def loolu sañ na ko sañ naa ñaan yàlla ki ko tooñ wax ko ca kaw tooñ gi mu ko tooñ mu beral ko ñëpp xam ne kii ab tooñkat la mooy def nangam kooku nag dañ koy sañ sañ nag bu bañoon ko def mu gën waaye bu ko defee nag dara ko fekk ñu war a dégg ci loolu kon keneen ku dul kooku daf aw ñaawteef wala fésal ko ku ko def def nga loo xam yàlla bëgg ko te lu yàlla bëggut amul njariñ loolu nag jamono yépp lañ ko war a moytu na jamono yi tasum xabaar mi nga xam ne tey nit ki boo xësee fesal aw ñaawteef mën naa dem ba jëmmi jamono mu bëgg loola dañ te dootu dañ ndax dana dugg foo xam ne àdduna jëpp ko yëg bu njëkk fésal aw ñaawteef mu ngi yemoon ci wax ko ci penc mi wax ko ci kër gi ci kaw benn benn nit ñoo koy dégg léegi nag boo waxee aw ñaawteef àdduna koy dégg te mën na faa des ba yàllaa xam mën nga fay jóge lu yàgg ñaawte fa des fa nit ñi di ko dégg loolu kon mat naa moytu bu baax a baax sëriñ Cheikh. Euh, kii moom day laaj mu ne ndax xele boo xam ne ràññee na danañ koy digal mu woor ak su tàmbali woon a woor ba ci digg bi yëg na léegi mu kàllaf la ndax dañ koy digal mu woor wala déet. waaw ci mazhabu Malik bi ñu nekk de moom dañuy wax ne daa bokk ci charte yi tax woor war nit mu nekk mag. ñaari sart lañu wax ne mooy sart yi tax woor war nit mooy nit ki nekk mag te mën a woor ku wéradi ba mënta woor wàcc na ko gone woor waru ñoom nag dañuy wax ne gone woor waru ko te deesu ko ko digalit bokkut ak julli mi nga xam ne moom dañu bëgg bu tàmbee bu duggee ci juróom-ñaareelu atam ñu dugg ko digal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 bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin mbokki julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi sun borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal al Xadim noo leen di nuyu di leen siyaar ak a ndokkeel di ñaan Cheikh Mouhamadou li Muntaxa mi fi nekk Sëñ Tuubaa sun ba bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér lool àggale mboolem ay naalam ak yéeneem tey jii di ajjuma di ñaar fan ak juróom-ñeent ci dul qiada muy diggu tabaski ci atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñeent juróom kon day mel ni tey mooy seen bu jëkk tolloog juróom-ñaari fan ci weeru juin atum ñaari junne ak ñaar fukk ak mu mel ni kon noo ngi dëgmal weeru dul xijja di weeru tabaski bokk ci al ashhurul xurum di weeru màgg wu tedd wu bari ngëneel lim gën a ràññikoo nag mooy ayit gi ci sunu boon defal xeetu yénd bi saasa ne tabaski nag ga mi ngi sababoo ci ñaari yonent yooyu tànni fi sunu borom seydina ibrahima ali ak seydina ismaila alayhim asalaam xew xeew boo xam ne yëpp maas nañ ko xam waaye tiraange sun boom ci xeetu yi sax tax mu rafaatal leen ko defal leen ko muy na ñuy fàttali ko xew-xew boobee ca sunu sun boom jotee woon sidna Ismail muy ab gàtt ñi di ko ci rend rendi ngir jaamoo ko yàlla xeet yi fi jaar bari na waaye amul wenn xeet bu ko sun boom mas a sundaal sharia lu dul xeet yi di xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy tiraangay sun boom kon ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi day baax nag ndax day mel weer wi tero rek yittey boroom kër yëpp mooy li lijjanti gàtt lijjanti gàtt boo xam ne moom la ñuy tabaskee te gàtt ba nag am luñ ca taamu am yuñ cay bañ kon dana baa waxtaanee ko ba lañ ca àgg ndax balaa nit kee wut ab gàtt war naa fekk la la ca war ak lañ ko ca moytu lépp mu xam ko mba bu koy wut bàyyi ko xel kon tabaski moom yi nga xam ne moom la ñu tabaskee dañuy wax ne lañ ci gën a taamu mooy xar ak béy gannaaw xar waaye yee ca des moom mel baaxuñ ko tabaskee fii muy muy nag wala giléem kon mën nañoo yem ci ñaar yooyu rek bu dee nag gàtt muy xar li ñu tuddee jata mooy la cay doy jata mooy gàttu xar boo xam ne am na at am na at maanaam fukki weer ak ñaar yu mat sëkk loolu la ca mat a xel mooy am na ci xeet ya raas ya raas yi xar yi raas yoo xam ne dañuy gaaw a rëy lu mel ne ras bi ñu tuddee laadum juróom benn weer képp su ko amee ku ko xool xoolaat ko day toll na ko neex soo xoolee rëyaay bi nag ba tax nga jàpp ne mat na tabaski ko fekk na dangaa tabaski lu matul tabaski ndax amut ndax juróom-benn weer rek la am amagut li nga xam ne bu ko àggut fi bu fa àggee doo ma tabaski te nag sunu boom lam ci santaane xooluñ ci reyaay bi sunu boom soxlu ndawal gi soxlu deret ji waaye pas-pas ba ko lal moo la ci soxla la yanaala llaaha luhumuha wala dimaa'uhu walaakin yanaaluhu taqwa minkum te léeg-léeg sax ñiy tànn riyaay gi léeg la ci puukare lay doon kon daal faaw na am at am at mu kenn nit it bu tëbëskee kum ci yéeni wàll tàbbi na ci biir kon borom kër gi su fekkee dafa menn xar la man la mën a am keneen mënu koo am mu jënd menn xar rendi ko yéeni ci waa kër gi yëpp ñëpp tàbbi ci biir waaye teew nag ñam koy yéeni ku ca man ku ca man nag man na jëndal boppam tëbëski doomam ju ko man wala soxnaam su man mën naa bañ a euh, wéeru ci bërëmu këram rek waaye mën na bu ko manee rek mën naa jënd am xar moom itam tabaski bu dee béy nag mun dañu xam ne faaw mu tàbbi ci atum ñaareelam tàbbi gu leer mooy am ca weer wala ñaari weer bu dee xar moom it la ci gën a taam taamu mooy kuuy am kuuy kuuy moo gën tàppaange waa su jàllee nag tàppaange ma ca topp mooy xar muñu tàpp su jàllee xar mu jigéen door ca topp waaye xar mu jigéen moo gën sikkitu bay maanaam moo gën uh, bay wu góor bay wu góor it moo gën wu jigéen wu jigéen wu bay moo gën nag moo gën gileem ci tabaski waaye bu dee xet yu na safaan ba la yu mooy ka nekk màkk la muy rendi moom dañoo xam moom reyaa bi lañ ci tàmm moo tax gileem moo fi jiitu moo ci gën su jàllee nag xaar topp ci bay door ca topp fan yi am na vidéo bu ñuy tasaare ci internet bi muy xar moo xam ne ko ko publier dafa wax ne ngulu ngaana la waaye nag dunguli ngaana ndax xontaa muskil bu ko arab waxee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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول السلام waxee xunsaa muskil te mooy ngulu ngaari ci olof mooy boo xam ne mënee sut ne góor la mënee sut ne jigéen la day am awra yu góor am awra yu jigéen lu mu ci gën a ràññi ko na loolu lañu ko jàpp mooy su fekkee dafay tuuree ndox ci awra yu góor yi ñu xam ne kon nekkatu kon nekkatul muskil góor la suy tooree ndox ci awra yu jigéen ji nekkatul muskil jigéen la suy tuuree ndox ci ñaar yépp nag lañu wax ne boobaa nag lay nekk muskil taxaar mi ñuy wane léppam góor la waaye bu ko doon bu doon xunsaa muskil teewul mënees na ko tabaski ndax bokkul ci sikk yi nga xam ne mooy moom lañ moom lañ jàpp ne mooy tee ma ma tabaski ndax bu dee xar mu jigéen mënees na ko tabaski ni ñu tabaski xar mu góor kon bu doon xunsaa muskil itam bu ko doon ngulingaani teewul mënees na ko tabaski dana ci doy kon baax ñëw mubashara ci sikk yi nga xam nag dañ koy moytu ci gàtt bi nga xam ne moom la ñu war tabaski nga xam ne bu ca amee rek matul tabaski bu njëkk mooy baat gàtt boo xam dafa dafa dafa pat mooy benn bët la yor matul tabaski ni ko noonu garte boo xam ne dafa wéri di lool wéri di gu fés ba ko gis xam ne daa wéri di matul tabaski waaye su fekkee day wooy lu woyof na loo xam ne teewu ko mën a ànd ak jur gi di fori boobaa dana baax bokk na ci tam xar mu làgg gi xar moo xam ne dafay sox sox metti boobaa ànd ak jur ji di ko raw xar mu matul tabaski ni noonu xar moo xam ne dafa dafa dafa dafa làpp mooy dafa yooy lool ba amul dara ci garis mooy itam matul tabaski ni ko noonu xar moo xam ne li ñu tuddee junoon da koo jàpp mooy dafay dafay say dafa mel ni luy say man nga xar mu dof matul tabaski xar mu lu moo xam moo ne musta mënta mi am matul tabaski xar mu nopp yu tuuti lool matul tabaski moo itam xar moo xam ne euh, dafa ràmm mbatul tabaski wala boo xam ne day day caar rek xar moo xam ne dañoo xar nopp wala ñu dagg ko luñ ci ma doon su fekkente ne ëppul sulus ba soo xaajee nopp bi ñetti xaaj su fekkee lañ ca xar ëppul benn ba wala matu ko mbaa lañ ca dagg baax na waaye su ko ëppee nag matul tabaski ni ko doon suñu daggee genn bi itam ba tey àtte ba wala su fekkee lañ dagg matul sulus bi wala ëppul sulus bi mooy da koy yes wala mu yam ca képp baax na waaye su ko ëppee na mooy ba tey dootuma tabaski fekkee béy ca béy jëm dafa damm muy naaj ci wéeragut mootul tabaski waaye su fekkee wér na nag wàññiwul dara baax na kon yooyu yëpp ay ay sikk la yoo xam ne bu amee ci moo tax kiy jënd war na ko xool bu baax lam ñu war a jëkk lijjanti mooy aas bi mooy mooy ndax ma am na atam déet su matee mu door a xool nag nembi ko cër yëpp ba xam benn cër dëggu ca lañ tuddoon ci sikk yëpp. ba dara yem amu ca mu door waxaale door dooru jënd ndax mën ngaa jënd ba indi door caa gis nag loo xam ne ci sikk yi nga xam ne yi koy teem ba tabaski la Tuubaa dootu ci mën dellu gannaaw kon yépp lu mata eh, bàyyi xel la eh, bis bi nag di waaye nag tabaski nag li muy baax baax li muy doon doon sunna ku ko man lañ wax ku ko man kon jër teg toggoo ca coono yoo xam ne ëllëg dala jure fitna jur ay bor eh, toggoo ci ay bor lépp ku ko mënul wàcc na la ki ko amit nag moo gën a yey ci rendil ko boppam su fekkee mën naa rendi moo xam góor lu moo xam jigéen ndax jigéen mën naa rendi su fekkee mënta rend nag mën naa wut keneen ku ko wutu rendil ko ko kum ci yéen it nag tàbbi na ci biir tabaski ñetti fan la bisu fukkeel bi fukkeel ak benn fukkeel ak ñaar soo ko mënul ci bu njëkk bi bu ñaar bu ñaareel baax na boo ko mënul ci bu ñaareel bu ñetteel baax na ba fu ci am ñetti fan bu fa ci mën a amee tabaski boo ko rendee dana baax waaye dee su ko rendi guddi nag jumaa doon ci bëccëg ba lay doon li tàmbalee ci fenk fajar ci ñaareelu fan ba ba ba ba ba jant so dañuy wax ne bis bu njëkk si wax fekkee dem nga doo amu xar la mooy nga muñ ba ci suba si coo yoroot nga kon yooyu ay mbir la yu ci am yoo xam ne yu mat a yu mat a xam la kon nag ñu ñëw ci xutba bi nga xam ne moom la imaam war a jàng ci kanam tuuti gannaaw bu mu sante yàlla tagg ko bàkk ko ci ay melokaanam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne gannaaw loolu yéen nit ñi da xam guddi ak bëccëg yaari warukaar warukaay lañu yoon ci leen nit ki mën a war ba jéggee ko mboolem maraaxili dund gi mboolem tolluwaayu dund gi ci la koy mën a jéggee ci ñaari waruwaay yooyu waaye ànd loolu lépp nag nun noo ni taagin toog jekki jëm jéemu mel mel ni ko jëmul fenn te aji wootee deekat mu ngi ñuy woo waaye ànd ak loolu lépp nag ñun ñi ngi nuur rek yen door ci nelaw yi càggante kon rek na ngeen waaj te teeroo seen weer wii di ñëw nag muy weeru sul xijja weeru tëbsi neen ko teeroo ceg yaatal ak aku teral te taxaw temm ci li leen war ci màggal ci màggal ko ngeen jaamate matali màggal te ngeen sellal nag seeni jëf ci biiram ngir jëm yàlla subhanahu wa taala tax ne weer wi na li mu yaatu yaatu la ca gën la gën ci weer wi mooy fukki fan yu njëkk yi al asru awaayil min til min til dafa nekk dañoo wax ne mooy bis yi gën ci mboolem bisi àdduna yëpp mboolem bisi àdduna yëpp fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski moo ci gën ma def suñu borom sax giñ ca wal fajri wala yaalin ashra dafa giñ ci fajabaayu daay dama wax maa ngi giñ ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski dafa teteel kon ak màggam mu ne kon nag nangeen ngeen ko na ko dafay dafay bis yu fees dell ki yiw ak yi ngëneel kon na ngeen ko dundal na ngeen ko dundal ci topp yàlla ndax lu bokk na ci wasaayil yi gën a màgg anam yi gën a màgg ci ci ci ci ci ci dundal ko mooy di ca topp yàlla neen eh, muslim eh, génne na xadis boo xam mu mi ngi jóge ci ummu salamata radiallahu anhuma mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax noo ne ida raaytum xilaala dil wa araada ahadukum an yudaxiya fal yumsik an chanrihi wa adfarihi neen yón saa salam nee na saa bu weeru tabaski teroo weer wi da ngeen seen loxo ci seeni kawar ak seeni weex maanaam su weer tabaski xasee teru weer bu xasee feeñ amatoo sañ-sañu dagg say we wala ngay watu li fekk ngay àgg ci bisu tabaski ba ren door ko sañ mbay lu xel nag tey la séentu bu njëkk kon ku bëgg a watu wala nga lewi ko gaawal ko balaa jant so ndax weer mën naa feeñ bu ci xas jant xasee so ba weer bi xas ne ku ko defagutoon nag bala nga ko sañ da ngaa àgg ci bisu tabaski ba ba noppi door ko sañ salaasa moo ko jàngale nee na kon bu xeer wi xasee feeñ rek nee na ngeen téye seen bopp ci seen kawar ak seen i wee ba kero mooy mooy ki ki ki war a ki nama tabaski nag kooku lañ lañ wax mu ne kon yéen nit ñi na ngeen xemeem li leen yonent bi saa sam xemeem loo te fu leen teg yàlla mi nga xam ne dara du ko rëcc lu toll ni fépp suuf ci asamaan suuf du ko rëcc yàlla na yàlla yàlla jariñ te jariñ leen ci alxuraanul karim loolu mooy xutba bu njëkk bi bu ñaaree bi gannaaw bu mu sante yàlla ba bàkk ko kañ ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne gannaaw loolu yéen jaam yàlla yi Tirmidi ak Ibnu Maaja ak Bayhaqi yu soloo nañ jëli ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu wax na ne ma min ayaamin ahabba ila llaah an yutaabada lahu fiha min ayaami ashri dil hijjati ba'da siyaami ramadan kullu yawmin minha bi siyaami sanatin wa xiyaama kulli leylin minha bi xiyaami laylatil qadr lu màgg la te ñun sax wax na ne gannaaw bu weeru koor jàllee amul bis yu gënal yàlla jaamoo ko ca ci fukki fan yi njëkk ci sul xijja ne bis yu màgg yoo xam ne benn bis boo ca woor dana tolloog woor atum lëm guddi goo ca taxaw naafila ko mel nga ko taxaw naafila guddi leelatul xadar kon loolu lu màgg màgg la ba tey jëliñ ci ibnu abbas radiyallahu anhu wax ne anuma am wax ne yonent bi sallallahu wax na ne amul yenn bis yu gën fa yàlla te gënal man yu gën fa yàlla jëf ca wala mu gënal yàlla asa wa jàlla ci bis yi di fukki fan ci ci weeru silhijja kon demel gannaaw bu koor yàlla rek bis yi gënal yàlla nga xam ne ku ko ca jaamu itam moo gën jaamu ko ci yeneen bis mooy atul silhijjati atul awaayil muy fan fakk fan njëkk ci weeru silhijja mu ne kon na ngeen ci baril di wax laa ilaha illallah ak allahu akbar ak xeeti tudd yàlla yeneen gannaaw nag woor ko benn bis dana tollook wooruk at jëf ca boo ci jëfee jenn jëf ñu ful ko ba ba ma juróom-ñaar téeméeri fulandi kon na ngeen ko màggal kon baax a baax a baax ci tudd yàlla ak ci jaamu ci yàlla mu ne ba tey jël nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne woor bisu arafat ndax bisu arafat ci fukki fan yooyu la bokk mooy juróom-ñeenteel fa juróom-ñeenteel fan ci tabaski mooy yow ma arafata at mu nekk weer réew mu nekk nag seen juróom-ñeent la xam nga mën nañu wuteeg màkka màkka mën nañu taxaw arafa fekk muy suñ juróom-ñette fan ñun waaye teew ñaari fan yëpp nag ñaar yëpp yu dégle ko ca war la muy juróom ndax fukki fan yëpp dañoo taam ko ca war rawatina nag juróom-ñetteel ba ak juróom-ñeenteel ba waaye bañ ca digli nag ma juróom-ñeenteel bu réew mu nekk seen juróom-ñeent rek mooy seen arafa mooy mooy mooy seen bis bis gën a taam ko ca war mu ne kon nag mu ne maa ngi yaakaar ci yàlla mu fa faar ci at bakaari at ma jiitu ak ma ca topp mooy boo waree yow ma arafa dañuy jégal bakkaaru at mi nga weesu ak bakkaaru at mi nga dëgmal kon loolu lu ko gën a màgg amut mu ne ñaan ci yow ma arafati nag am nay may yu màgg a màgg màgg màgg yoo xam ne imaam Malik génne na ko ci Muwatta wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne afdalu duaa yi duaa yawmi arafata wa afdalu ma xultu ana wa nabiyuna min xabli laa ilaha illa huwa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nee ñaan gi gën ci ñaan yi mooy ñaanu ko yawmi arafata da ñaan yooyu gëcc nga xam ne moom man moom laa wax man Mustafa yonent ya ma jiitoon moom lañu wax mooy ñaan gi di laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in neen mooy ñaan gi gën ci yow maarafata neen man lool laa wax yonte yama jiitoon itam tam lool ñu wax ne ñaan googu mooy ñaan gi gën ci kon di ko baril ci bis boobu baax na lool yal na ma yàlla jégal te jégal ñu jégal mboolem julli yëpp yal na suñu boom bool dimbale bool defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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

الحمد لله الملك الديان الذي خلق الأملاك وسخر الأفلاك وقدر الأزمان وشهدت بوجود ذاته ووحدانيته الأكوان الواحد الأحد الذي ليس في ملكه هان الدائم الباقي وكل شيء سواه فان نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونستعينه سبحانه ونستغفره من كل ذنب عملناه عن عمد أو خطأ أو نسيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في سان ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه سيد ولد آدم وأشرف بني عدنان أما بعد فيا أيها الناس إن الليل والنهار مطيتان يقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قود وإن منادي الموت ينادينا ونحن في نوم الغفلة رقود وتأهبوا رحمكم الله وتلقوا شهركم هذا بالترحيب والتكريم وقوموا بما يجب له من الإجلال والتعظيم وأخلصوا العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العشر الأوائل منه فإنها أفضل أيام الدنيا بأسرها مسحونة بالخيرات والفضائل فاعمروها بطاعة الله fa inna dalika min ahdami alwasail wa axraja muslimun an ummi salamata alin radiallahu anhuma anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama qaal ida raaytum hilala di lxijjati وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأوباره أيها الناس ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم alhamdulillahi kama yanbaghi bi jalaalihi wa shukru lahu ala ma awlaahu min saabiri ifdaalihi wa nashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu fi daatihi wala fi sifaatihi ولا في أفعاله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وإرساله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مدى بكور الدهر وآصاله أما بعد فيا عباد الله روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها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 fa inna duaa fiihi maziyatun أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 sabbih isma rabbikal a'laa allazii xalaqa fa sawwaa wallazii qaddara fa hadaa wallazii axrajal mar'aa faja'alahu ghusaa'an ahwaa sanuqri'uka falaa tansaa illaa maa shaa'a allaah innahu ya'lamul jahra wa maa yaxfaa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

asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون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 إني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون تنصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل تزرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم